yàlla dogal kii nga xamante ni moom la ñu jébbal suñu borom léegi di Fatou Kiné dem ñu bokkoon bërëb ba nga xamante ni fa la ñuy tuuree suñu ñaq di fa sakko suñu wërseuk muy groupe futur ya yalla dogal président yousou Ndour jité ko waye tay rakam mu ngi ni tok di suñu kilifa fofu itam sa bërepp ba di Boubacar Ndour kon kaddu yu ñuy yëkëti si ndigalam lañ koy défé ndax bobak légui bi xibaar bi wàccee ba légui ku top télé bi ak programme bi xamné ne fa tabarakallah ma sha allah ñu ko jéglél soxna Fatou kinna dem te loolu li ko ko may mooy yi ñuy bëgg a wax di ay qualité ay jikko yoo xamante ni moom la ñu gis ci moom naw ko muy mbaax muy yaatu muy bëgg nit muy fonk liggéeyam waaye itam muy ñeme dëggam képp koo xamante ni yàlla dogal na nga bokk ak Fatou Tine dem fa ñuy tuure suñu ñàkk kàddu yi ma wax ak jikko yooyu mën nga ko ko sedeel mm-hmm. te démb ba tey fa tabaarakallahu ñu ngi ko koy seedeel ci li nga xamante ne moom mooy si li ñuy yëngu muy si wàllu média bi mm-hmm. waaye démb nag lañu ñu gën a xam dëgg-dëgg nag jikko yooyu Fatou Kiné fan la ko jële mm-hmm. muy kër Cheikh Abdoul Ahad radiallahu taala anhu ndax ku xamoon Fatou Kiné dem xam ko si fonk liggéey ku xamoon Fatou Kiné dem xam ko si jox cër doomu aadama waaye ku xamoon faatu Kiné dem xam fullam xam fay dem xam li nga xam ne moom moo di ñeme dëggam te ku xam Cheikh Abdal Ahad radiallahu taala anhu jikko yi ñu wax fa tabarakallahu macha allah suñu borom subhanahu wa taala defoon na ne loolu nekkoon na ci ci ci ci moom kon démb la ñu door xam ne nekkati Fatou Kiné ni mu mel yëpp mu ngi ko jëlee kër Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu yaakaaram te loolu itam fa mu ñëw si groupe Futurs Médias moom la fa àndaale ndax ku ne xam na ne ay nit bu ñu bokkee bërëb di tuur seen ñaq du ñàkk légaa lekk am yoo mm-hmm. xamante ni xëy na mën na xew mm-hmm. waaye bu fekkente ne yaa def wala mm-hmm. defuloo sax ni ko ñëpp seedee bu la gisee dana ne la waa yow li woon démb moo tax nga romb mu nuyu wóoloon kafak ak yow reetaan ak yow kon la mu waxoon fàtte na ko wala la nga waxoon fàtte ndax xam na ne yooyu yëpp si cadre liggéey képp la war a mën a amee ndax ku ne xam na ne bëñ ak làmmeñ ñoo ñoo ñoo dëkk ba dëmb rek foofu la ay jeexale wax ji dañu génn benn image bu daw yaram mbisaan ndooy mii moom moo ko doon filmé mu taxaw fële ca fa xam ne moo di daaru Quddoos fa Cheikhul Khadim radiallahu anhu daje woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ak ahlu badrin dem liggéeyalu yàlla liggéey bu am solo bi nga xam ne démb lañ ko doon fàttaliku mm-hmm. yàlla nañ ko fekk at yu bari mm-hmm. bi mu taxawee yor micro bi di wax am ku jàll si kanamam te loolu àndul ak liggéeyu télévision mu gestu ko xool ko xool ko xool ko ba ko sori mu daal dee reetaan ndeysaan muuñ nga xam ne kii nit la koo xamante ni jàngal nañ ko li nga xam ne moom moo di jéggale mm-hmm. jàngal nañ ko li nga xamante ni moom moo di jëllale mm-hmm. jàngal nañ ci itam li nga xamante moom moo di ak dal mm-hmm. ndax bari waaye na xëy na koo xam ne bu doon moom la mu doxalee neneen si jëfin wala si waxin waaye ay reetaan ak muuñ fa tabarakallahu macha allah moom la jéexale mbir moomu kon njéggal googu ak jéggale gi nekkoon si moom yal na ko fekk biir suuf yal na xippee àjjana yal na ko yàlla teg si loxol cheikhul xadim radiallahu taala anhu te itam wax dëgg yàlla mbaax ak yiw ak jullite rek moom la ñuy seede si moom mm-hmm. kon daal kàddu yooyu mm-hmm. moom la ñu Boubacar Ndour yónn yóbbante woon mm-hmm. mu bàyyee ko si président Youssou Ndour néewi jullit yëpp itam sëriñ bi ñu ngi lay masaw bu baax ci nga ñàkk xam naa ne tiis bi ñëpp ñoo koy bokk ak yow insha allahu taala jërë ngeen jëf suñ fàll xale bu ndaw nekkoon RDV di daw di yore appareil di ñu topp fu ñu jëm ci wàllu santé pour xam ci def liggéey bu am solo moo tax loola ministre de la santé mi ngi dafa dem ba Botswana. Hmm. nekkul ci dëkk hmm. mais démb bi mu yëgee yëf yi mu ne ma yow ak Lamine Bara Gaye Lamine Bara Gaye Mbàkke la dëkk hmm. mi ngi nii sama ginnaaw mooy directeur SNEIPS moo ëpp lu muy liggéey ak ñoom Chérif Diamy xam na li may wax donc kii mission la amoon mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bu rëy rëy boo xam ne ñun Sénégal fu ñu fi dugg rek ci wàllu wér-gu-yaram topp nañ te bu ñuy topp nag bu ñu topp ci li ñu neex daf ñuy topp ci gis-gis yi muy am ba pare di ñu ko tegal ministre bi démb dafa ne li mu li ko metti rek mooy Fatou ne dafa ko topp di ko invité pour ñu dajee toog waxtaan fekk ministre bi ñeenti weer ci ginnaaw xaw ma ñett jëkkëram dafa wàcc loolu moo ko téye woon mm, mais nee na nañu ñëw ba fii mm. fekke ko jaale ko frère am Youssou Ndour jaale ko waa kër Sëñ Abdou mm. ba pare nag jaaleel ko ay mbokkam di ko ñaaral yàlla nag fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm en tout cas rajo Futurs Médias ak télévision bi ñëpp ministère la santé ñu ànd ak Alassane Cissé président bi ñu ngi ñi di leen jaale ci loolu yëpp waa ci turu ministre de la santé jërëjëf eh, jëmm su fi bàyyi ko Euh, suñu borom day wax malaayka yi ni leen ñëw leen ngeen teew fekke seede yi ñuy seede ci moom sallallahu alayhi wa sallam jàngal nga nañu udkuru mahasina mawtaakum da ngeen di tudd di fàttaliku yi nga xam ne moom la seeni woy faatu rafet la liñ fi wax lépp rafet ñu xam ci moom lépp rafet bu xadimul Moustapha mii di suñu kilifa waxee waxloo sama sang bii sëriñ si ba noppi man naa wax sax doona sul teggin may wax waaye sama sa xarit soxna Maam Bousso Mbacke sa ah, ah, bàjjan ah. dafa am lu mu séqoon ak soxna Fatou mi ci yaakaar ak doyloo démb rek ñu ngi koy wax ci télé bi bi ñuy waxtaan ak seen mm. jiriñam man mii jot naa ko ci hôpital bi boobu yàggut mu mu gën a sàkkuwaat ñaan nga xam ne soxna Maam Bousso mm. bi bi ma demee ba gisatuma sama wajur soxna Lawbe moom laa def muy sama ndey mm. di sama sëriñ ba noppi sama baay sax teg na ko yaakaar mënu ko wees li nga xam ci moom it mooy li ngeen seede ci moom rek suñu asan li ngeen seede nga xam ne yéen ko yéen daan jonjoog moom loolu rek lañ xam ci moom man mii damay soog a dem Tamba fekk fa way juram waaye itam di sama way jur muy alaaji Tuubaa dem ndax moo ko sëñ Tamba sama sama way jur ñoo bokk ñoom ñaar ñoo bokk nekk Tamba ba noppi lëkkaloo woon nii nekk benn booba booba gën na maa doon ndaw waaye daf maa jël daf ma ne ne doomam foofu ma tey ji boo demee Tamba am am nañ fa kër am am fa dal am fa lépp hmm. waaye saa bu soxna Bamba su jógee Touba dem Tamba hmm. day romb kër googee hmm. dem kër laaj Touba dem foofee lay wàcc ndax ni mu ko bëggee woon kon li ngeen fi seede doy na sëkk ñu ngi leen koy jaal sëñ bi di ko jaal njaboot gi yëpp di ko jaal yéen ñi itam yéen ñi nga xam ne yéen a ko yéen a nekkoon moom di liggéey ak moom ñaanal yàlla ñaanal yàlla ci baaxu sëñ Tuubaa ak barke màggal gi ak barke Cheikh Abdoulahi Lahad mm. yàlla na ko yàlla teeru ci njëgam te itam tabal ko ci àjjana gën a kawe